janvier wala sax décembre sax parce que bi ñuy tëj parrainage yi c'était au mois de décembre. bien sûr ñoom nee nañ diggante juillet ak décembre ci la ñu fexe ba am mbooloo bu leen parrainé. Mm-hmm. au minimum quarante quatre mille. Mm-hmm. Mm-hmm. kon ñoom xanaa dañu ay baguette magique xanaa. dañoo gën a chance <laughs> wala bul bi ci seen côté la gën a tourné. Uh-huh. loolu laaj la rek damay laaj. ci ñoo xamante depuis une année derrière gisoo leen ñu def le tour du Sénégal ñu ñi may wax ni waxuñ sax ne dañu bëgg a nekk candidat à la présidentielle gisoo benn cellule wala session bu ñu monté ci dëkk bi ñu ne ñii dañ la leen soyez candidat wala dañ leen demander ne leen présentez-vous à l'élection présidentielle je pense que ñii ma wax noonu te ñu présenté wu amul benn Euh, ndaje bu ñu woo en tant que taskatu xibaar ne ay nit nee nañu ñii ñu poser candidature ci présidentielle ñoom ñoo ne dañuy nekk candidat ci diir bu gàtt. bien sûr waa tey ñooñu ñoo jàll. ñu ñëw matal ko. Euh, face à ñenn ñi jàll d'office. face à des mastodontes. des mastodontes oui politique. Bougane Gueye depuis mu ngi fi. Mhm. Idrissa Seck deuxième à présidentielle moom mu ngi fi moom it jàllul parrainage. le mhm. pur. <laughs> un parti très organisé boo xam ne foo dem ci Sénégal am nañ fa ay cellules. Mhm. ñoom it ñu ne am nañ problème mu parrainage le ki qui a ne Bassirou Diomaye Faye. ñoom it ñu ne am nañu problème mu parrainage. yëpp nga day gis. mais loolu loolu nag loolu laa bëgg ku ma ci expliquer pour mu mën a comprendre fiabilité. Mhm. ak crédit bu ñu mën a jox sa système de parrainage. oui parce que ku ko comprendre rek di nga comprendre lan moo éliminer nit ñi. Mhm. et ça va être difficile pour nit mën ko expliquer. Mhm. loolu moom kenn mënu ko gaaw a expliquer. c'est pour dire que fichier bi am na problème. base de données yi candidat yi liggéeyee pour dem parrainage. am na problème. Mhm. léegi nag ñoom conseil constitutionnel pour ñu segg ak ñu bàyyi ñoom it critères yi ñu ci teg amaat na problème. Mhm. donc c'est un parrainage à problème. c'est un parrainage à problème mais ki est nébuleux. Mhm. un parrainage wax dëgg yàlla bu amul dara. ci clarté y a pas de clarté. ndax su amoon clarté buñ génnee kenn du jël ay ay kenn du kenn du mer kenn di fupp te li ma la laaj yéen. posez-vous la question comment des gens yu fi yàgg am fu ne ci dem fu ne ci Sénégal waaw may nga poser yooyu nga mën a poser question mën nga mën a laajte c'est ça fiabilité euh, filtrage bi ñu def ci parrainage bi ay nit yoo xam ne même pas juillet août la ñu ñëw ñu ne ay présidentiable lañ tey ñooñu ñoo jàll d'office haut la main ay nit yu fi nekkoon foo dem ci Sénégal fekk fa seen ay cellule fekk fa seen ay session fekk fa seeni i militant ñooñu ne mënuñu jàll mais il faut nous expliquer pour qu'on puisse comprendre léegi li ko gën a nag xam nga liñ naan un crime n'est jamais parfait li ko gën a nag décrédibiliser mooy les les soi-disant massistes ñi nga xam ne dañoom am masse les candidats de masse les candidats d'appareil comme Benno Bokk Yaakaar comme le Parti démocratique sénégalais comme xalifa Sall mhm. ñoom ñu ñëw indi parrainage des élus mhm. pourquoi moom moo ma moo jaaxal ñëpp. Benno qui est au pouvoir. Benno waxoon na a les coups de franc a 4 millions de parrains. comment Benno peut aller passer avec le parrainage des élus. ana 4 millions yi. ana 4 lu tax Benno dem <laughs> avec le parrainage des élus. moo jaaxal ñëpp. le candidat de Benno lan la xam. lu ñeneen ña xamul ba mu dem ci parrainage des élus. Mm-hmm. surtout que ñoom ñoo nekk au pouvoir ñoom ñooy organiser cette présidentielle. Mm-hmm. voilà la question. ku am réponse bii rek di nga comprendre lan moo éliminer ñi ñu wutloo yeneen parrain yu ñu war a indi ak ñi nga xam ne dañ leen recalé d'office ñoom mm-hmm. ñoom amuñu sax alternative pour euh, dem di wutiwaat parrain mm-hmm. c'est pour diir que si présidentielle bi la ñu gis un candidat tam am fit indi ay député yu amul nee daa bëggoon jàll pour présenter ah mais parce que li mu fi fekk la <laughs> su gisoon benn euh, machine boo xam ne am na benn sérieux bi am na benn rigueur bi du sañ dem di wuti député yoo xam ne euh, d'une manière fictive la ko wute c'est parce que dafa fekk système bu yaraax boo xam ne mën nga sarale ba jàll mu ne ma ni naa saraxe ba sarale ba jàll xëy na peut-être il n'est pas tombé sur la bonne porte mm-hmm. tout pour dire que euh, ce cette cette élection présidentielle de 2024 démarre très mal Mohamed mm-hmm. parce que li fi amagum ci biir procesus bi wanewul vraiment des élections libres et transparentes libre je libres libre pourquoi parce que ni ñu bëggee def sélection bi loolu dafa dafa dafa dafa dafa feeñ quoi dafa flagrant parce que tamit nit ñi xel la ñu yor ci xalaat les sénégalais ne sont pas dupes je vous ai cité cette liste qui son des des candidats qui ont admis d'office nga mën ci génnee ñu mag ñu waroon na ñëw ak parrainage citoyen ñoo ñu daw làqatu ci parrainage des élus ñu indil ñi ñenn ñoo xam ne ñu ne d'office la la ñu jàll te yow bunoo dem Kunkande fekk fa militant wu peut-être am ta Babacar kañ la commencé ba mën fa installer cellule wala ay représentant ñu ne ñu ne moom valide na dix régions sur les quatorze régions du Sénégal. vraiment tamit aidez-moi aidez-moi à comprendre. je mm. c'est une femme on soutient sa candidature. Mm. mais aussi on est obligé quand même d'analyser les faits. On analyse les faits. On ne stigmatise pas, mhm. mais dañuy analyser ces faits. Parce que loolu aussi nit mënu ko norme mënu ko nangu le fait que man day faatu ma toog mois d'août rek ne candidate la ci présidentielle doxuma demuma dikkuma dóoruma àttewuma fayuma tey ma ne jàll naa parrainage haut la main fan laa jaar mhm. ana samay nit ana sama mbooloo mhm. ana ñooñu moo tax madame Mimi Touré li mu ne parrainage yi ñu recalé yi ñu nee nañ leen ko wutali. Mhm. nañ leen indil ñooñu pour ñu mën a vérifier ndax ñoom ñu ngi ci fichier bi wala c'est quoi le problème. parce que ci ban critère la ñu waxee ne ñii ay doublon lañ wala ñii. ñu ci fichier électoral bi. parce que dafa yomb quoi waaw mais il faut que ñu dimbali ko il faut que ñu ñëwaat ci. ñu leeral ba mu gën a leer ci bopp candidat parce que aussi ñi ñi dem déposer parrainage quand même ils ont le mérite d'avoir vraiment chercher dem mm. wàcc ci terrain bi déployer des moyens logistiques humains wax dëgg yàlla et aussi am mbooloo bu leen ne am mbooloo boo xam ne cautionné nañ seeni candidature parce que ñi fi def meeting d'investiture ñaata lañ mm-hmm. ci ñi nga xamante ne jàllagum na dañ koy wàññi mm. donc yooyu noonu yëpp nekk fi sur la table on se lève du jour au lendemain pour diir ñi dem nañ ñii demuñu mm-hmm. ah loolu pour man c'est trop facile et puis baaxul ci suñu démocratie sénégalaise bi nga xam ne du démocratie majeure hmm. démocratie mineure la parce que lii fi jot am wane na ne ñun on a beaucoup de pas yu ñu war a avancer am na beaucoup de jalons yu ñu war a poser et ça ça démar par des élections man déjà yàgg naa ko wax parrainage optionnel bi baaxul parce que bi ñu koy décider pour appliquer ko ci présidentielle bi xamoon nañ ñi mënoon bénéficier wu ci parrainage boobu ak ñi ko mënul bénéficier et loolu ça fausse les règles du jeu c'est ça doy tax équité amu ci équité amul ba am ñu lésé mais loolu baaxul day mel ni ñuy ñuy waaj a def top départ Mouhamed jiitu taxaw cinq minutes mètre Ndefa taxaw dix mètres ci ginnaaw ñu bëgg ñu dawandoo bëgg àggandoo si même ligne d'arrivée mais c'est pas possible quand même c'est pas possible donc on n'organise pas des élections avec autant de couac et élection mhm. maintenant les candidats qui sont concernés mhm. ñoom ñoo war a liñ naan euh, fulla ak fayda ñoo war a taxawal fulla ak fayda lépp lu mu jaral nit ba mu bëgg a sa processus électoral ñoom mu jaral leen ko ba mu tegu ci yoon ku nekk ñu mën la permettre nga mën a participer et nga mën a wone sa bopp sinon on se retrouvera vraiment autour d'une liste boo xam ne beaucoup de questionnements autour et franchement le Sénégal ne mérite pas ça on Absolument. veut vraiment élire un président on ne mm -hmm. veut mm-hmm. pas destituer mm-hmm. ni ñuy enlever un régime on veut élire et pour élire mm -hmm. il nous faut un choix absolument te Ndeye Fatou li nga fi wax yëpp man dafa gën a tiital dafa ma gën a tiital gën a teyal sama xel mm-hmm. ci euh, élection présidentielle bi ñu jëm c'est-à-dire lii rëq-rëq yëpp man may na ma mas man ma am sentiment wu ñu ngi jëm ci ab élection bu nga xam ne mhm. véritablement boo moytuwul catastrophe lay doon te nag on a quand la chance d'aller vers une élection bu nga xam ne wax dëgg yàlla dañu ne ñu may sénégalais yi tànn mhm. ku leen neex tànn un profil pour la première fois sax au moins sëriñ mhm. est-ce que loolu dina dal xel li ak compte de li ñu fi wax yëpp non euh, du dal xel parce que toutes ces situations la gis nañ ko bi muy ñëw gis nañ ko ñi am lecture yëpp ak analyse yëpp gisoon nañ xamoon nañ ni fii lañ jëm. droit mhm. au au mur. parce que tout à l'heure man du nekk si ñuy théoriser naan parrainage bi sax am na lu baax ak nangam ak nangam parrainage bi baaxul. Mhm. parce que c'est antidémocratique ça ne respecte pas le processus démocratique. Mhm. mënoon dañuy dem élection présidentielle ngay ngay jël ay candidats di leen teg ci kanam di jël ñii di teg ci ginnaaw je l'ai dit tantôt. beneen bi nga xamante ni daf ci am. am na ñoo le 28 la ñu jàlloon am ñu jàll jeudi bi ak vendredi bi lu tax jàll ñu tey loolu ça mérite des interrogations dafa mérite ñu leeral ñu ko conseil constitutionnel leeral ñu ko. beneen bi ci am mooy yàgg naa ko wax di interpeller les sénégalais ne leen trois types de candidats dina taxaw seen kanam des candidats parrainés par le régime te loolu dafa feeñ ci kii ñoom ñoo ñëw tey yàqal les potentiels candidats yi ta yi taxaw. neexut a weddi parce que président moo fi toogoon ne am na élection yi fi jot a jaar. am na liste yi ma mais sabotage bi ci am. sabotage bi ci am rek daf ko firnde. président Macky Sall moo parewul ci ay pexem ci réduire sans opposition bi ci élection.